asalaamaaleykum euh, mesdames messieurs les journalistes maa ngi leen di nuyu di leen remercier ci seen teewaay ginnaaw bi ma leen euh, ndokkalee ci tamxarit bi di ñaan ñu fekkee ko déwén yu bare bare bare di ko ñaanal aussi suñu njiit yi président Bassirou Diomaye Faye, Premier ministre Ousmane Sonko, l'ensemble des membres du gouvernement, le responsables ak sénégalais yëpp yàlla defal ñu atum jàmm ak salaam di ziyaare aussi suñu kilifa diine yi ah di sàkku ci ñoom ñaan pour que année bi ñu jëm doon année naataange ni ngeen ko xamee sunu mouvement muy le mouvement pour le mérite l'intégrité et l'indépendance membre fondateur u coalition Diomaye président Diomaye kon tey en tant que allié engagé ñu ngi rafetlu les premier pas bu suñu régime bu bees bii mi nga xam ne mu ngi soog a matal téeméeri fan yi en tant que régime ma bëgg nag aussi saisir l'opportunité pour vraiment tontu ñi nga xam ne vraiment war nañ leen a tontu nag ndax li fi jot a jaar yàggut te sénégalais yi fàttewuñu ko ndax lañu war a njëkk a fàttali mooy gulee ci bu yàgg a yàgg depuis defe naa ne 2000 2000 ak léegi defe naa ne xale yi ci juddu woon ñee ña ngay sëy ñee ñu ngi yuutu soxna kon loolu yàgg na booba ba tey élection présidentielle ci ñaari tour lay sotte waaye électeurs yi bi yoon benn voyage ci benn voyage la ñu décidé dégager régime APR benn voyage la ñu benn dal fal président Bassirou Diomaye Faye dès le premier loolu yàgg naa gëj naa am ci Sénégal la mu wone mooy sénégalais yi dañu àndoon ak détermination pour que li jot a xew ak na mu mujjee muy régime mu président Macky Sall ñu tourner la page waaye nag li may tàmbalee mooy féliciter le président Bassirou Diomaye Faye premier ministre am Ousmane Sonko l'ensemble des membres du gouvernement ñu félicité leen félicité aussi les membres de la coalition Diomaye président am na ñu fi teew maa ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu aussi seen contribution ci victoire bi di félicité aussi sénégalais yëpp ak fu ñu mënta wote nag tous les sénégalais yi nga xam ne dañoo gër ne démocratie sénégalaise fondement yi dëgër nañu moo tax ñu xëy jour 24 mars boolewuñ ci coow dem woote ci anam ba mu gën a leere boolewuñ ko wax ju bëri ni histoire ba déjjëti fi régime bi nga xam ne mooy bu président Macky Sall ak bu APR ak bu Benno Sénégalais yi démocratie la xam wane nañu ko aussi très clairement waaye dañuy aussi luñ dul faral di def delloo njukkal sunu armee quartier dañ leen di delloo njukkal ndax c'est une boo xam ne bii elle est restée républicaine ci jamono yu lëndëm ci politique bu Sénégal ñoom boolewuñu ne boolewuñu ci list yi nga xam ne en Afrique coup d'état militaire am na fi kon ñoom it xëy na la grande muette lañ leen di wax ndax bariwuñu coow waaye ñun citoyens yi démocrates yi Ah, ñu ngi leen di delloo njukkal waaye nag maa ngi rendre un vibrant hommage aux martyrs de la démocratie ñu waruñ leen a fàtte mukk ay martyrs lañ leen war a di lañ leen war a jàppe ñoo xam ne dañoo joxe seen bakkan pour démocratie taxaw waruñu leen a fàtte mukk te waruñ nañ ñoo fexe ba justice ñu jox ko seeni famille mbokk yi maa ngi aussi rafetlu bu baax a baax l'ouverture d'esprit clairement exprimée par le président Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement ci nomination yi nga xam ne jot nañ ko seetlu ñu fal ay personnalités yoo xam ne bokkuñu sax ci champ politique bi naa ci indiqué ministre de la Justice, politique, sa politique, ministre de l'Intérieur, ministre des Forces armées. ñooñu politique ñu waaye gis nañu seen xarañte ak seen bëgg réew mi ñu tabb leen ci gouvernement loolu man dama koy lu donte politicien la di rafetlu aussi yeneen ministre ministres yi nga xam ne dañu leen a tabb te bokkuñu ci parti wu président Diomaye wala ci parti ak ci parti wu premier ministre Ousmane Sonko. xam ne bokkuñu Pastef loolu aussi li mu firnde mooy ouverture rafetlu aussi ni mu président Bassirou Diomaye fay tabbee le très respecté professeur Abdoulaye Bathily def ko envoyé spécial loolu it dama koy rafetlu li mu firnde acte yooyu mooy képp koo xam ne kii Sénégal moo la soxal képp koo xam ne kii bëgg nga réew mi avancé te kenn musulaa dégg ci lu luñ lay xeebee kenn musulaa dégg ci lu ñaaw defe naa ne président ak premier ministre ak gouvernement am ubbil nañ la say bunt man noonu laa ko liire di ko rafet mbokk yi bu fekkee dañuy toog di xayma résultat wu téeméeri fan yu njëkk yi ci gouvernement mënuñ koo tuddee sax évaluation appréciation lañ ko mën a tuddee ndax boo xoolee mandat bi cinq ans la trois mois yi cinq pour cent bi kon bu doon liir dañ naan liir bu tooy xepp la waaye nag mën ngaa apprécier xam ne du liir bu du lu xiiban lu ñu war a mën a am yaakaar la moo tax ñu bëgg ñu comprendre bu baax a baax opposition bu bees bii ni mu bëgg a def foog ñu comprendre li ñu bëgg def ñoom li ñuy jéem a def te amuñu ci succès nag ndax sénégalais yi seen xel ak seen seen seen intelligence dañu àndal la ñu bëgg mooy dal gi ci réew mi dal gi ci réew mi may fàttali heure bii daaw ci ba yan tolof tolof lañ ne woon ak di tubaab naan optimisme bi maanaam yaakaar mi nga xam ne sénégalais yi am nañu ko te mu juddoo ci changement bi nga xam ne moo am le 24 mars muy ñu mel ni danoo libéré Sénégal ñoom lañu bëgg mooy fexe ba loolu gaaw a deñ ñu ànd ci nag ak di wax lu amul ànd ci ak wax ju ñaaw ànd ci ak manque de hauteur pour certains lañ ca wutu aussi mooy fexe ba ñoom seeni seeni ñaawteef ah nit ñi fàtte ko te loolu kenn mënu ko fàtte kenn mënta fàtte li tolloo sant xale yu ñàkk seen bakkan xale yooyu seeni wayjur duñ leen ñaanali jabar xale yooyu seeni ya seeni wayjur duñ leen mës a ñaanali jabar ndax dem nañu ñooñu duñu leen fàtte ba mukk la bëgg aussi mooy ñu fàtte le scandale des mille milliards bu fonds Covid ba nit ña nga xam ne ña nga doon dee di feebar am ñoo xam ne ñoom seen xel te bokk ca ñoom ci duubal alal booba la newoon. Mansour Faye nee na yaay yooyu daf may porter plainte parce que nee naa il a procédé à un carnage financier des fonds Covid. waaw mais Mansour Faye moom doon goro président moo tax Sénégalais yi xam ko amut beneen leneen loo mën a signale ci CVM mais li ma wax yéen ñii ñëpp ku ne wax nga ko ay centaine Sénégal journaliste wax nañ ko ci seeni plateau waaye la ca ëpp solo mooy une vingtaine de députés dañu ko woo def un mémorandum de vingt pages ne ko kaay wuy si yow dañ laa war a yóbbu haute cour de justice moom ak yeneen juróom-ñeenti ministre waaw kooku war naa taxaw fii naan ma ngay dem tribunal ak ak yu dafa xamul de gorom newatu fi gorom dem na te fi nii gorom dem na la ñu bëgg aussi ñu fàtte mooy suñu suuf si nga xam ne ñoo ko bokk bi ñu saax-saaxee ñu naan la ab député deux hectares voilà ab ministre quatre hectares am na yoo xam ne yi nag wax dëgg yàlla mais ñu ngi félicité suñu autorités yu bees yi nga xam ne ñoo dakkal loolu dal di annuler lépp passé lépp ndax suufu Sénégal nag ñoo ko bokk li nga xam ne moom la opposition bu bees bi di jéem mooy ñu faase ci xelu nit ñi di jotaam te mu doon ay mesures yu am solo man économiste la inflation maanaam yokk njëg yi ci àddina bépp looloo fi xew ñu nekk Italie may dégg ñu nekk Amérique ñu may dégg ñu nekk France ñu may dégg prix day yokk loo dem ba Amérique ñu ne la prix wàññeeku na amul wala nga dem France ñu ne la wàññeeku na fii ci senegal ba ñu ñëwee ci téeméeri fan yu bees yi wàññi nañ fi njëg kooku dañuy saluer mesure bu am solo boobu nga xam ne vraiment jëm na ci jàppale njaboot gi ak boroom kër gi la bëgg ñu fàtte te mu am te ñu war koo wax nag ndax politique nag aussi fulla ak fayda la wax li nga xam ne mooy lu baax li nga xam ne moom la sa régime def man loolu laa xam ci politique. 41 milliards yoo xam ne yii dañu ko fay ñi nga xam ne ñoo ne woon ci mbay mi opérateur agricole yi quarante 41 milliards waaw loolu ci téeméeru téeméeru fan. te bor ba doonoon ati ati ati at te l'essentiel des Sénégalais di dundee mbay kooku il faut le saluer il faut même féliciter vraiment suñu autorité yi ci loolu la ñu bëgg aussi ñu fàtte mooy dañu fee bàyyi ay bor pour étudiants yi fayuñ ko ba ñuy dem ku ko fay gouvernement bu bees bii ñoo ko fay mbuurkaat wax naa ko ñu nangu lépp nag delloowaat ko askan wi parce que suufu Sénégal nag ñoo ko bokk war nañoo dem nag ba xam bés bu ñuy def lotissement yan critère la ñuy teg en place pour képp kuy sénégalais vraiment boo sa bu ci sa chance nekkee nga mën ko am ñoo xam ne dañuy tirer au sort bu ñu définir ay critères yi beral loxo ña nga xam ne ca gox ba nag ñoom ñoo fa nekk mais sénégalais yépp ñu yem ci suufu Sénégal lañu ñu bëgg aussi ñu fàtte ko te ñu war di ko fàttali. mooy président lu Diomaye fay ca campagne ba dafa ne woon man buñ ma falee damay tekki samay ndombo tànk ca parti ba mu bokk mu def ko loolu am na solo te dee njaaxaanaay gouvernement bii ñuy wax mais gouvernement rétréci la li tubaab naan dañoo rationaliser ministère yi loolu yëpp pour yàq yaxanal alalu réew mi la yóbbu ko ci priorité yi lu ñu daan gis bu njëkk quarante et quelque quarante cinq ministères gis nañ ci gouvernement wu quarante cinq ministères gis ay ministres près de ministres loolu gis nañ ko fii waa loolu yëpp jeex pour rationaliser loolu aussi foog ñu koy wax fàttali ko suñu mbokk sénégalais yi ñu xam loolu lañu ñu bëgg aussi ñu fàtte mooy gouvernement bi dafa jël ay actions yu am solo ne dañuy renégocier waat les licences de pêche def naa ne acteur u pêche yëpp d'accord nañ ndax nañ doon joxee pêche yi euh, licence de pêche yi amuloon benn transparence defe naa ne loolu jën ñu am huit cent kilomètres de de côte jën pêche dafa di secteur bu am solo mënuñoo jox suñu licence yi rek sur des bases obscures xamuñ kan mooy napp euh, voilà suñu pêcheurs yi ñoom toog dem géej gi gën a gën a sori ci biir géej gi pour am lu ñu dundee kon loolu bu ci gouvernement bi jëlee ay mesures yu am solo dañ koy féliciter dañ koy saluer ñu rafetlu aussi bu baax man yàlla def na damay souvent nekk aussi ci activité activités bu ma dem la ñuy rafetlu mooy taxawaayu président Bassirou Diomaye Faye ci politique de sagesse mag gi ak tey ji waaye nag aussi ak fermeté bi ak fulla bi ak fayda bi loolu nit ñi saluer nañ ko sénégalais yi aussi saluer nañ ko ak aussi descente de terrain yi sur le terrain moom jóg na fi dem Mbourkat premier ministre Ousmane Sonko dem na Ndar nanu ko continuer li nit ñi bëgg mooy seeni njiit nekk sur le terrain gis nañu aussi le ministre en charge de l'assainissement ci nawet gi ñoom ñëpp nañ wàcc sur le terrain ñu am une gouvernance de proximité kon joxe ngeen yoon wi loolu dañ leen ci félicité dañ leen ci encouragé bu baax a baax a baax loolu am na solo pour que vraiment ñu mën cee continuer li nga xam ne aussi muy lu am solo mooy justice ndax justice sénégalais yi demoon nañ ba découragé désespéré du justice jarutoon ngay dem yoon bu fekkee ne amoo doole bu fekkee amoo relation bu fekkee amoo bras yow xam nga dañ lay atte président Bassirou Diomaye Faye woote assise nationale ñun ñi teewoon nañ ñëpp ñëw ba yi ñi nga xam ne dañ leen yoon daf kas euh, caabi daf leen féete woon ginnaaw ci conditions yi nga xam ne moom la ñuy dundee ndax nit ki nag bu nekkee détenu aussi être humain la donte de aussi détenu lay doon parce que du watal non plus ku ñëw nga ma profité ci pour wax ne man la ma gis ak la ma jàpp mooy li sénégalais bëgg mooy mooy justice bu tëddee jaaxaanaay loolu nag pour mu am président de la république man dama gëm ne mooy suma position en tant que Aminata Touré te defe naa ne partage naa ko ak tous les membres du mouvement mooy président la république mën naa continuer di présider waaye waratu la désigner ni juge ni procureur loolu lañ koy jox comité boo xam ne ma nga ca biir ñu seet ñi mérito ñu seet ñi nga xam ne am nañu étit ñi nga xam ne kenn mosu leen xam ci luñ leen di xeebe ñu jox leen promotion mu am équité waaye nag aussi man li ma d'accordul muy suma position muy yëf yi di am rek ca biir entre juge man dama jàpp ne par bi foofu mu nekk fa ndax nag c'est fii Sénégal la aussi dañu am faiblesse sama doomu bàjjen yi ñoo bokk voilà fa ñu dëkk nangam nangam yooyu nag il faut que président bu fa toogee moom la cay doon cëram mooy mu vérifier na lañ fay dogal méngoo na ak yoon mooy mission de contrôle de validation contrôle waaye du ne jël leen procureur diw la ma ko sant defu ko sànni leen ko fu sori waaye nag boo demee fu sori xamal ne Sénégal la sax loolu sax da dul sanction di nuyu suñu mbokk Kédougou yi suñu mbokk Matam Ouro Sogui euh, voilà ñi ne ci périphérie bi de Sénégalais à part entière ku ñu fa affecté da xam ne Sénégal nga nekk jéggiwoo frontière man loolu ci suma position ci wàllu justice bi président nag moom mooy décider waaye ñun nag buñ dee ay alliés yi aussi dinañu wax leenu xalaat parce que jàpp naa ne euh, il faut aussi que suñu justice bi mu am ay contrôle la ma dégg aussi mooy ci wàllu éthique proposition yi ca def yooyu it ñu ngi koy soutenir bu baax a baax a baax foo xam ne fii fa la ñuy wóore ne ña fa ne ñooy saytu ne lii ñuy def méngoo na ak yoon ca biir justice ndax nag gis nañ fi yow lu ne justice premier président bi ak premier ministre bi neuf jours après débarrage de la campagne dañ leen libéré ci ay accusations yoo xam ne ñëpp xamoon nañ ne politique la loolu warutul waratulaat kon loolu mooy li nga xam ne vraiment ñu ngi koy saluer ñi nga xam ne nag ñooy sama waa APR ak waa Benno ña ca gën a wax sax ci rek conférence de presse bu mujj bi te ña ma ca dégg Macky Sall ci boppam mosu leen a def ministre ak portefeuille mosu am dafa mosu leen a def ministre ak portefeuille jigéen fi dégg lu ne nag ndax fi ne nii concours xaxar la parce que la ñuy espérer ku ci nekk mooy ñu def la ca liste nationale ba waaye ca conférence de presse ba parce que nag am na ñoo am maanaam APR aussi lu ñu nekk opposition teguñu fa seen tànk ñoom sax ña ngay accélérer la cadence ca génn parti la te loolu lañ waaye nag wax dëgg yàlla ñoom Macky Sall ba muy dem tàgguwu leen gan yi ñëwoon sax moo leen njëkk a dem président Ablaye ba muy dem réunir na partenaires gërëm leen sant leen voilà ñaax leen ñu def parce que nag aussi li ñu war a xam te man muy sama conviction ndax foofa nag xam naa la fa xew ak la fa daan xew mooy lii nga xam ne moom la ñuy jéem a def mooy casser le moral casser le rythme comme ci football rek buñ la dominer dominer dominer dominer dominer sëpp la ci camp yi sëpp la ci camp yi arbitre lañ lay wax mooy fàddal voilà Sadio Mané fexeel ba du jege camp yi ndax sonal nañu arrêtel attaquant bi ci yooyu la ñu ne muy ay tentative vraiment pour casser le moral des Sénégalais ci lak yoo xam ne yi ay information yoo xam ne méngoowul ak la réalité tey bu fekkee ne dañoo dem waa APR yooyu ca permanence su Macky Sall di fa conférence de presse parce que moo leen ko sant foofu benn caabee fa am amul ñaar amul ñett mooy ubbi mooy wax ku fay ñëw mooy génn mooy tëj kon activité yi moom moo leen ko sant à partir de fa mu ne moo xam muy France te dem naa France la wala muy Maroc ñi mu bokk ña wax yàlla def na nag comme xam naa leen bu baax a baax kenn du ci jël sa initiative bu bopp di def loolu ñoom lañ leen sant la leen Macky Sall sant moom la ñuy def du ñu ci yokk virgule duñ ca wàññi virgule ñu sawar ci nag ñu ci bëri sawar ci mooy li ma leen wax xaxarkat yeeg comité d'invective et d'insulte yeeg parce que ñoom ñëpp la ñuy carte mooy place ca ca liste ba législative ndax kenn mënu cee gañal sa bopp dem leen wàcc ci résultat yi seet kenn gañe ci bureau de vote kenn d'ailleurs comme la plupart des députés moo tax ma ne man assemblée nationale dañ ko war a dissoudre ca am ca jour bañ leen faleem ca la mot ñaari at ñu dissoudre ko parce qu'elle n'a plus de légitimité légitimité bi ci élection quatre mars yi ci lañ koy natte député yooyu ku ci ne ca gox ba nga ne dañ la ko dóor dóor yu metti sax waaw dafa ma doon premier ministre Ousmane Sonko du ma fa présenter DPG damay xaar ba assemblée bu bees ak député yoo xam ne yi vraiment Euh, ñoo nga sox soo ñoo nga ñoo nga ñoo nga am légitimité populaire parce que dañ leen a fol fal pour cinq ans bu ko defee man ma dem présenté ndax booba présenté yi mën naa la wax ni député yi nga fay fekk ñoom ñëpp ci assemblée bu bees bi doo leen gisat xanaa ah, da ngay defaat beneen DPG ndax ñu xam voilà li nga li li nga bëgg a def donc pour man président Macky moo nekk France di leen jox ay instructions parce que nag lu ne def na ko fi pour am troisième mandat ba ñu paree mu ne report de l'élection parce que bàyyiwul man loolooy sama conviction moom li mu bëgg mooy voilà wax leen voilà donte li ngeen di wax sax sori na dëgg wax leen rek bu ko defee ngeen jaxase xelu sénégalais yi jaxase xelu jeunesse bi bu ko defee man ma am poro porox ndoll bu ma mën a jaar pour seet nu may ñëwaate loolu mooy stratégie bi comprendre nañ ko de comprendre nañ ko bu baax a baax a baax te loolu du fi prospérer d'ailleurs sax président Macky Sall patron sax lañuy ñuy fii parce que moom Macron lay liggéeyal moo signé contrat il faut que président Macron wax ñu qu'il nous dise parce que dafa am incompatibilité mënoo nekk chef d'un parti de l'opposition ak parti rek d'une manière générale avant muy dem la exiger ñu fal ko président wu APR koy fàttaliku avant dem ba noppi nag bëgg a nekk envoyé spécial de Macron loolu bu continuer dañuy jàpp ne France moo ko ci jàppale France mooy def une immixion dans les affaires intérieures du Sénégal donc voilà l'interpellons directement le président Macron ou le président Macky Sall est votre envoyé spécial à ce moment-là il démissionne de la tête de son parti l'APR ou alors il démissionne du poste d'envoyé spécial qu'il occupe auprès de vous pour à ce moment-là continuer à diriger son parti Les deux ne peuvent pas se faire en même temps. Et si cela continue, nous considérons qu'il s'agit d'une émission grave de la France dans les affaires intérieures du Sénégal. Voilà ce qui doit être clarifié, Monsieur le Président Macron, sans délai. et puis président et xam parce que loi bi nee na dañ koy fay 9 millions nañu wax est-ce que mu ngi fayeeku 9 millions yi. nañu wax est-ce que ma aide de camp ba garde corps bi sur les frais du Sénégal pendant que vous travaillez pour le président d'un pays étranger loolu musul am musuma koo gis ci àddina te moom nag moo doon le commandant en chef de nos armées suñu secret militaire yi moo ko yor suñu cartographie de ressources moo ko yor xamuñ lu mu cay def nag mais moo tax ñu koy fay en tant qu'ancien président pour que vraiment mu mën a toog noppalu bañ a dugg ci yoo xam ne yii vraiment du cëram kon loolu interpellation bu ñu koy def la bu fekkee da nga jàpp ne soxlatoo statut ancien président ak la mu àndal kon tegal pay mi tegal garde du yi tegal aide de camp bi tegal lépp dem nag sa naataango bu woon di la fay kooku sa droit la sa décision waaye ñaan ñi moom mënta am mbokk yi man li ma jaaxal ci mbir mi sax mooy les tenants d'un régime yi nga xam ne li nu indi ci tiis ci réew mi ci souffrance naka la nu mën a continuer di wax comme si voilà Sénégalais yëpp nañoo toxu bàyyi leen réew ak li fi xewoon yëpp fii li fi xewoon ci Sénégal fii milliers de jeunes yi nga xam ne ba tey ñu ngi traumatisé ñi ma leen wax xale yu bari yi nga xam ne ONG yi estimé nañ une soixantaine de jeunes yu ñu boobu ñooñu seeni seet du ñu mës a céetal kenn du leen ñaanali jabar ñooñu dem nañ ba faaw waaw loolu yëpp ngeen am ko ci seen ndodd demu leen lu sénégalais yi àq def introspection ngeen jël micro yeeg rajo yi di wax mais c'est inadmissible ñu wax leen seen bopp foog ñu wax leen seen bopp d'ailleurs ñun dañuy am solidarité bu mag ak les familles des victimes man dama jàpp ne assemblée bu bees bi dafa war a dindi ba mu set la loi d'amnistie ba mu set wecc ñu seet ana ko commandité woon ana ña exécuté woon ba xale yooyu ñàkk ci seen bakkan yoon dal seen kaw parce que nee nañu il faut réconciliation mais il n'y a pas de réconciliation sans vérité ñoo ñooñu ay ay dañoo am ndey ak i bàyyi bëgg nañoo xam ku boom seen i doom bu ñuy baal nag ñoom ñu seen ndax dañuy baalam déet waaye la vérité doit être rétablie Ghazali que les deux gendarmes Didier ji Fulbert Sambou ndax enquête bi bar ñu xam ñoom anañu qu'est-ce qui s'est passé voilà qu'est-ce qui s'est passé parce que nag li ma jàpp mooy réew boo bëggee mu am jàmm day am justice en tout cas ñun ñu ngi encouragé bu baax a baax a baax président Bassirou Diomaye Faye premier ministre am Ousmane Sonko ak tout le gouvernement ne leen nag yoon wi ñu jàpp bu ñu ko wàcc benn yoon te ñu ngi seen ginnaaw yoonu jubal jub ak jubal ñu ngi leen di encouragé pour que ñu défendre suñuy intérêt surtout ci la gestion de nos ressources nos intérêts vitaux nationaux lépp bépp contrat boo xam ne jaar nañ ne daf ñuy néewal doole nañu ko renégocier uti tous les experts parce que looloo am ci réew yi ñuy wax ne mënuñu renégocier renégocier des contrats mais waxuñu luy dëgg au contraire en tout cas ils auront le soutien de tout le peuple sénégalais ils auront le soutien du mouvement Mimi ñu ngi leen di encourager aussi pour ñu ajuster ak adapter le projet pour un Sénégal souverain juste et prospère boo xam ne bii ñu nit contribuer nañ ci parce que bu ñu duggee ci coalition bi dañu indi suñu programme aussi nañu ko ajuster na mu na mu war a dañuy wax naan projet amul parce que nee nañu dañuy war a ajuster finaliser mais yoonu yokkute Euh, ba ñu faloo 2012 dañ ko réajusté indi PSE loolooy xew ci nguur yu bees yëpp nguur yu bees yëpp loolu ngay def da ngay ajusté xam li nga fi fekk yeneen priorité dellu si nga tenir compte du contexte nationale international des comptes publics du niveau de la dette parce que niveau dette bi sax lu ñu war xool bu baax a baax a baax a baax la moo tax may féliciter président ba mu annulé yenn contrat yi nga xam ne ay trois jours avant Macky Sall di dem la ko signé loolu fu ñu ko mës a gisee une telle inélégance ci gàttal monsieur le président de la république monsieur le premier ministre mesdames messieurs les membres du gouvernement ñun jàpp nañ ne yéen a ngi ci yoon bu baax bi vous êtes sur la bonne voie ñu ngi leen di assurer suñu soutien total entier lépp lu ci suñu warugar ak suñu wareef dinañ ko ci def notamment défendre les actions importantes yi nga xam ne jël ngeen ko ñoom nag ñoo bëgg koo suul waaye suñu kër mënu ko tere feeñ mënu ko tere feeñ nanu continuer en tant que ñun dañoo àndoon ak yéen campagne ba fajar kon duñu nangu kenn kuy ñëw bëgg rek defe na ci wax ju bari ak euh, jàpp ne sénégalais yi voilà comme voilà dañu jàpp ne comme on est un peuple qui oublie qui pardonne voilà bu wax ci baree baree bare rek danañ mën a suul jëf ju baax ji ba noppi surtout ñu fàtte ñaawteef yañ defoon ñoom ñu ngi leen di encourager ci la reddition des comptes képp ku fi lubal lubal alalu askan wi nanu ko leeral dañ ko leeral qui porte plainte Mansour Mansour Faye mais j'espère que ci plainte bi xanaa dégg na dégg naa Aliou parce que la Aliou Sall wax waxuma un dixième bi man dañuy xaar plainte am bi contre lui moom yeneen joñam vous avez le soutien entier de notre mouvement et du peuple sénégalais la ca war a def yépp def leen ko ci ñu ngi jeexale ci ñaax askanu Sénégal ñaax suñu jeunesse suñuy njiit lu ñu jàmbaar jàmbaar jàmbaar ñun bu ñu leen jàppalewul bu ñu dem toog rek ne maa ngi xaar gouvernement loolu sottalul benn réew nañu takk sër yi parce que jigéen ñi ay jàmbaar lañ ci ñoom lay commencé boo duggee boo yewoo fajar ci car rapide yi ñaari góor ñooy ne ci car rapide yi mooy chauffeur beeg coskeur nekk des ñëpp ay jigéen la ñuy doon jàmbaar lañu président ak premier ministre jàppale leen leen bu baax a baax ngeen leen jàppale ngeen ko réccu c'est des travailleuses elles se sacrifient pour leur famille di ñaax notre jeunesse avenir seen avenir fii la du tugal gee France ngeen ngi ngeen dem gis ngeen leen depuis une semaine mënuñoo am premier ministre depuis une semaine mënuñoo am premier ministre ñoom seen bopp la ñu tal lijjanteeguñ seen bopp sax fii la seen avenir nekk dans l'industrialisation du pays, dans la modernisation de l'agriculture, mm-hmm. dans le soutien à la pêche, dans le soutien à l'artisanat, dans le soutien à la culture, dans votre formation professionnelle. dañ danoo bëgg di leen gis fii ngeen jabar ci sunu kanam mm-hmm. ami soxna ami soxna ami borom kër ci sunu kanam ñun nag bu nu sonnee yow si ngeen yox ñu loolu lañ bëgg waaye bëgguñu leen ci gaal yi les pirogues de la mort arrêtez les de la mort restez avec nous ici ndax ginnaaw yàlla nag bu changement amee dangeen ngeen cee dugal seen loxo doon doon ci ay doonoon ci ay jàmbaar dëgg dëgg dëgg ndax ñañu rey ñëpp ay jeunes lañu ñu ngi leen di vraiment encourager doon ndaw dafa metti bu leen jàpp rek ne ñun danoo yeewu rek lépp sotti fii ngeen jaar ñun ñëpp jaar nañ ci il faut que voilà ngeen takk rek voilà takku rek takku rek takku rek metti ngay muñ uti ne ci lu ndax nag looloo fi nekkaan voilà ci campagne bi président Diomaye nii la def ne jub rek loolu dafa am solo cëpp réew kon li opposition bu bees bi jéem te sotti maanaam découragé leen voilà ci kaw information yoo xam ne méngoowul ak yow du ñu leen ci bàyyi du ñu leen bàyyi ñuy intoxiquer l'opinion au contraire dañuy encourager suñu gouvernement di leen jox aussi suñu xalaat ci xalaat boobu bokk na ci ñuy dem à la base ci comité de quartier yi population yi aussi dugal seen loxo waruñoo toog rek ñu ne président day ñëw premier ministre day ñëw pour set setal mais bu ñu set setalee ba dem mais au quotidien la ñu war a am les comités de propreté de quartier chef de quartier yi ñu leen di encourager pour ngeen jël initiative yooyu ak maire yi ak les comités des femmes des groupement ñu am ay concours balai d'or la jeunesse aussi ñu jàppale leen ci formation ñoom it ci set setal yeeg reboisement yeeg ñu dugal ci seen loxo bu baax a baax a baax ndax non loolu moo construire réew yi waaw ah, dama na ma ma nekk fonctionnaire international mais la ma jot a gis ci réew yi ma visité Corée du Sud dégg ngeen guerre 1954 dañ leen a rasé woon jébbiyeen rasé tey ñu bokk ci puissance yi gën a mag kenn jógewul bitim réew ñëw di développé seen réew dañoo takk seen digg ba indi seen réew yi fii kon c'est possible c'est tout à fait possible te dinañ ci ànd ak yéen incha allahu loolu moo doon li nu bëggoon a waxtaan yéen defe naa ne ñëpp dégg na nañu wolof fi euh, war nañoo mën a waaw est-ce que soxla nañu tubaab bi ça va être résumé parce que defe naa ne li ca ëppoon solo wax nañu ko defe naa ne bu ñu jëloon question yi ma mën cee tontu ci yenn yi ci français voilà defe naa ne mooy defe naa ne mooy jëm voilà kon dañuy jox RTS bi nga xam xëy ne dañuy soxla français bi bas